بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ñoo ngi delsi ak yéen ci muwatta imam malik rahimahullahu taala ñu nekkoon ak yéen ci kitaabul kalaam téere bi nga xamante ni bii lam fay jàngale mooy li jëm ci wax ak sàmm làmmiñ tey nag ñu ciy ubbi bunt bu bees boo xam ni ah daanaka mooy xoromus jataay yi wala boog mooy suukaru jataay yi mooy liy xumbal jataay yu bari ci ñun penc yu bari looloo ko xumbal boo ko ca génnee daanaka dara du ca des moo di lan jëw yàlla nañ ci yàlla musal kon imaam imaam Malik nee na baabu maa jaa fil xiibati bunt bi lim fiy jàngale mooy li ñëw ci àtteb jëw jëw mooy lan nuñ koy xamee mu ni xaddathani an malik yaxya ibn yaxya allayti nee na sëriñam imam malik nettali na ko an il walid ibn abdillah ibn sayyad mu jëlee ko ci sëriñam bu ñuy wax al walid ibn abdillah ibn sayyad mu ni ann almutalib bna abdillahi ibni xantab almaxzumi axbara moom walit nee na sëriñam bu ñuy wax almutalib ibni abdillah bokk ci waa quraysh moo ko nettali ann rajulan saala rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam mal giiba mu ni am na benn waay boo xam ni daal laaj na yenente bi salaa sallam ni ko lan mooy jëw fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ne an tadkura min al mar'i ma yakrahu an yasma nee na nga tudd ci sa mbokk loo xam ne bëggul kenn dégg ko qaala ya rasulallah laajkat ba ni ko yow mi yàlla yónni wa in kaana xaqan doonte li may wax dëgg la qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko ida qulta baatilan fa dalika al muhtaan bu nekkee li nga wax du du naka su du noonu la wala bokk li nga wax neen la mu ne su boobaa loola moo di wax naka su du noona mooy wax la ca ginnaaw dëgg mooy sos xadis boobu nag imaam Malik noonu la ko andee ci téeréem mu nekk xadis boo xam ni jokkalawul de dafa dagg bu la neexee nga tuddee ko mursal mooy foo xam ni ab saxaaba war na faa nekk te nekku fa ndax kii di almuttalib ibni abdillahi ibni xamtob nekkul saxaaba de tub saxaaba de bokkul ci àndandoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nan la mën a nettalee lii te fekkewu ko kon am na fu mu ko jëlee fu mu ko jëlee waxuñu ko moo tax ñu ni kon xadis bii ci càllale gii ci imam malik wérut ndax lan dafa nekk mursal loolu nag daan ci ñëw ci ni ñenn ñi ñoo gisee noonu waaye imaam malik gisul loolu moom imaam malik moom xadis boo xam ni mursal la moom dafa jàpp ni bu wér la des koy tegtaloo moo tax mu koy indi ci téeréem loolu nag kii di alxaafiz al iraqi junj na ko ca téeréem ba nee na waxtajja malikun kada numaanu wa taabicuhuma bihi wa daanu mu ne kii di imaam Malik ak imaam Abu Xanifa ak seeni ndongo ñu topp ci ñoom ñu topp seenum ngir nee na ñoom lii di xadiisul mursal xadiis boo xam ni mursal lañ koy tuddee ci ñi jàng xadiis nee na ñoom dañ koy layoo dañoo jàpp ne lay la wu biir xadiis bu wér la ci ñoom bés mën a jëfandikoo kon nga gis ni imam malik foofu wute na fekk ñu baree bari ci ñi nettali xadiis ndax boo demee ci ñu mujj ñépp dañoo dëppoo ci ni xadiis mursal moom kenn du ko jëfandikoo waaw imaam Malik moom ak imaam Abu Hanifa ñoom nee nañ déedéet aha kay des koy jëfandikoo kon loolu wute googu lu am la waaye hadis bi nag wér na sax nag wér na jokkaloo na tamit waaye du ci yoonu almuttalib mii jël nañ ko ci hadis abi hurayra imaam muslim génne ko ci beneen yoon woo xam ni mook hadis bi mën nga ni benn lañ rek waaye nag ñi leen nettali duñ benn kon hadis la boo xam ne bu wér la bu wér la nag mooy ñépp a ca dëppoo génn nañ ci imaam malik ak imaam abu hanifa ak imaam ahmad sax na xam naa ci yeneen jotaay dañ ko tudd wuute gi am seen diggante ak ñeneen ñu topp seen gannaaw su boobaa kon hadis bii fekk nañ ko ci imaam muslim mooy ñëpp dëppoo nañ ci ni boobu moom wér na péng te la muy wax ak li hadis bii di wax benn la rek kon hadis bi mën na ñoo jàpp ni wér na péng ñëpp dëppoo nañ ci ni wér na loolu mooy li koy gàttal léegi xadis bi ci kan lañ ko jëlee moo di alwalid ibni abdillahi ibni sayyad kooku mooy sëriñu imam malik almadani daanaka nag booy wër ci téere yi ngir biographie alwalid mii di nga wër ba sonn doo génn lu dul wax ju gàtt-gàtt ñu ni zakarahu ibnu xibbaan fi thiqaat walid daal kii di imam ibnu xibbaan nekk ku siiw ci téere xadis yi nee na moom thiqa la waaw tudd na ko ca téeram ba ñuy wax ak thiqaat ni moom mënees naa jël xadiisam waaye imaamu zarqaani borom téere bi nga xamante ni bi ci la ñuy sukkandiku di ci jële xadiis yi ak sharaab yi li ci ëpp moom lan la wax ci kii di alwalid te nga xamante ni bii daanaka kenn xamu ko taxul mu siiw mu ni wa kafaa bi riwaayati malikin anhu tawthiqa kii di azzarqaani nee na doy na rek ñu xam ne walit nit ku baax la nit ku wóor la ku ñuy jëfandikoo xadiisam la mooy ni imaam Malik génneel na ko ab xadiis ci téereem su boobaa mu ni fekk giñ ko fekk ci téere imaam Malik moom walit mu ne loola mooy wane nii kuñ mën a jëfandikoo xadiisam la loolu nag du waxi Zarqaani dong imaam Malik moo teg règle boobu ndax dañ ko daan laaj ni ko waaw diw moom ndax kuñ mën a jëfandikoo xadiisam la ndax fiqa la mu ne ndax gis nga ko ci téere samay téere imaam Maalik loolu la tontu de boo ko laajee diw ndax moom ku mën a mokkal la ku ñu jël xam-xamam la mu la ndax gis nga ko ci samay téere surtout bu nekkee waa Madina boo ko nee waaw mu ni kon fiqa la soo ko nee gisoo ko ci mun la bu nekkoon fiqa bu nekkoon ku ñu jël xadiisam la mun nga gis ko sama téere bi nu Muwatta wax ju rëy wax ju rëy maanaam téere imaam Malik mooy balance Madina koo fi gis rek xamal ne ku maandu la ku mën a mokkal la kuñ tàgg la koo fi gisut ah teyel ci mbiram imaam Malik nee na su nekkoon jàmbaar su nekkoon boroom xam-xam su nekkoon kuy nee na nga fekk ko ci samay téere kon walit mi foofu lañ sukkandiku ba ni ah moom boroom xam-xam la jàmbaar la ku wóor la ku ñu jëfandikoo xadiisam la ndax imaam Malik andi na ko ci téereem ñu dem ca sëriñu alwalid nag te mooy almuttalib ibni abdillah ibni hamtab alqurashi almaxzumi kon kooku moom ci askan yonente bi sallallahu alayhi wasallam la bokk nag moom almuttalib moomu waaye dundul ak moom àndul ak moom bokk ci àndandoom fekkewul jamonoom ñen ñoo di ay sëriñam moom almuttalib sëriñam mën nañ caa tudd abdullah ibn amr mën nañ caa tudd ibn abbas mën nañ caa tudd jaabir mën nañ caa tudd abi hurayra ak ñeneen ak ñeneen kon saxaaba yi ñoo di ay sëriñam nag waaye nag moom salaa salaam fekkante woon jamono ba muy jële ci moom te hadis bi daf koy nett li mel ni ku fekke jamono jooja moom ñen ñoo di ay ndongoom moom almuttalib ibn abdillah mën nañ caa lim ku mel ni ibnu jurayj ak imaamul awzaa'i ñoo ñu nekk ay ponkal ñu xam mu wuteeg loolu walit ma leen passé nga xamante ni bii daanaka sëriñam duñ ci lim ñu bari ay ndongoom gisuma ci kenn xanaa nga ni imaam malik ay sëriñam mën nga ni ki mu jël xadiis bi gis nañ ko ci waaye muttalib mi moom ah ay sëriñam lim nañ ci ñu bari ay ndongoom lim nañ ci ñu bari yëmul ci loolu ibnu saad nag nee na laysa yuxtaju bi xadiisihi moom kii di almuttalib ibnu abdillah nee na xadiisam kenn du ko jël kenn du ci layoo kenn du ci lay too bokk maanaam kenn du ko jàpp ni mat na lay waris na koo jëfe ji lu tax ibnu saad wax loolu mu ni li annahu yursilu kathira ndax moom gaaf gi ne ci moom mooy xadis bi da koy irsaal maanaam hadisam day dagg day dagg de du la jox lu mat de waaye loolu boo demee ci imam malik loolu du jafe-jafe ci moom comme niñ ko wax woon ca commencement jitaay bi waxtaja malikun kada numaanu wa taabiuhuma bihi wa daanu kon imam malik moom day ixtijaaj maanaam day laytoo ci lii di xadiisul mursal kon moom amul jafe-jafe ci buntu boobu wut na fa ak boroom xam-xam yu bari comme ibnu saad lii muy lii muy bëgg a wax ni moom kii di almuttalib daal hadisam kenn du ko jël ndax moom day irsaal almuttalib nag ibnu abdillah kañ la génn àdduna ñu ni dund na ba atum téeméer ak ñaar fukk ci gàddaay gi dund na ba atum téeméer ak ñaar fukk ci lii di gàddaay yantam sallallahu alayhi wa sallam kon buñ ñëwee ci chara xadis bi nag ginnaaw buñ paree ci almuttalib xadis bi fi mu commencé moo di benn waay boo xam ni laaj na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mal ghiba lan moo di dëgg-dëgg jëw jëw mi nga xam ni suñ boroom yàlla tere nañu ko waxoon ci alquran ni wala yaghtab ba'dukum ba'da mu ni ñenn ci yéen buñ jëw ña ca des ku man di doon ci yéen bum jëw mbokkam loolu alquran moo ko xaraamal kon ma ngi ci suratul xujuraat aaya fukk ak ñaar lan moo di jëw nag mun ko moo di an tadkura nga tudd bu doon suñ jamono jii tamit nga bind comme ni nga xamante ni bii léegi bëri na lool am ak yow jafe-jafe rek neexal journaliste bëri na ca organe sàngam mu bind ci yow article yàq sa der tey jëw a ngoog wala sax nga junju lu mel noona wala ngay comédie di ko toppandoo ah comédien yi nañ di du loolu kon yii nii imaamu Nawawi moo koy tudde imaamu Nawawi jamono ji yàgg-yàgg avant suñ lii di xew waaye yii moom daf ko ciy dugal kon ñun ñuy dund mujjantalu jamono nañ bàyyi suñu xel bu baax ci ne am na yu ñuy def yoo xam ni téere yi nee nañ dafa xaraam bind article ci diw ndax ni dangeen am jafe-jafe ci àdduna dangeen ñàkk a déggoo jëwangoo ko dafa xaraam di comédie di toppandoo nit ñi ah su nekkee jox ñu la ca ndigal dafa xaraam ndax yaa ngay def loo xam ni nee nañ ci buntu jëw lay dugg toppandoo gi toppandoo min al mar'i an tadkura min al mar'i nga tudd ci sa waay ji nga tudd ci doomu aadama ji fii xaybatihi nag lañ ca jublu mooy nekku fi koo xam ni nekku fi nga ne ci deram di ngañ-ngañi ah loola jëw lañ koy tudde maa ikraha an yasma loo xam ni bëgg koo dégg su ko déggoon da koy dal di metti naan doomu aadama ji ab naafiq ab naafiq la te ñu bari léegi kàddu googu yombal nañ ko lool diw ak a naafiq yaa ngi koy jëw de aw dunyaa wala koo xam ni yaa ngi tudd ci moom loo xam ni bëgg ko ci àddunaam naa ko lekkatu riba bi ñu bari léegi dañ koo gaawal lekkatu riba bi wala wax ci ni ko yàlla bindee naan diw moom ni mu sewee ni mu tuutee xanaa du lekk jëwa ngoog wala ci këram nga naa kër ñoom diw ñëpp nangam ah yaa nga leen di jëw yow yematoo sax ci jëw benn nit wala ñaar waaye kër gi yëpp nga jëw leen ëpp na wala boog ñii di ay surgaam comme ni nga xamante ni bii doon na am ca jamono yàgg ya wala maanaam sax ba tey mi ngi am di law surga ku liggéey ci kër gi mën naa surgaam si dee lekk ba suur sax duñ ko def lekk ba suur sax duñ ko def wala bokk ci alalam ñu ne ah diw de alalam ju bari jii liggéeyu ko de diir bu gàtt bi mu am ci lii lépp liggéeyu ko de teewoon ngaa rafet njort te xam ne suñ borom yàlla mooy joxe alal mën naa am nam ko bàddile mu bàddila yow tamit waaye déedéet dañ naan diggante bu gàtt bii de mënu fee am lii lépp wala boog ci ay yéeréem wala ci ay yëngutoom wala sax naan diw ak a mën a ñàngal yooyu yépp imaamu Nawawi nee na day dugg ci buntu jëw donte yenn yi ñun ñoo ko saraanoon waaye lu ci man di am cosaan yi yépp imaam imaamu Nawawi tudd na ko ci téeréem ca ba muy sara te hadis bi nekk ca téere imaam muslim ak yeneen yoo xam ne sax man fa laa ko bàyyi waaye lii yépp moom imaamu Nawawi moo ko tudd ci benn place kon nga gis ni buntu jëw lu yaatu la de lii lépp daf ciy dugg imaamu Nawawi moo wax loolu nee na wa gayri dalika mimma yataallaqu bi ak yu dul yi sax te nekk ci doomu aadama nee na mën nañ cee dugg de kon de imaam Nawawi daanaka bàyyi lu ñu dara lam bëgg rek mooy kuy wax ci sa moroom nga xam ni bàkkaar mën na la caa fekk waxal lu baax aw li yasmut comme soxaloon la ma waxoon ku gëm yàlla gëm àllaaxira say wax ci doomu aadama yi waxal lu baax wala nga noppi ida qulta baatilan fa dalika al buhtaan salaa sallam ni ko ba mu ko laajee ni ko waaw ndax kon mooy ma wax loo xam ni su ma su nekkee la may wax dëgg la nag waaw waxkat bi loolu la wax te ñu bari ci ñun dañu am jafe-jafe boobu nag mun ko su nekkee li may wax dëgg la nag xam nga dañuy day da nga koy dégg ci jotaay leen sax ñu ne ah waaye moom li mu wax dëgg la dëgg la gé taxul mu génn ci buntu jëw de salaa sallam lu mu tontu nee na ida qulta baatilan fa dalika al buhtaan ne su nekkee li ngay wax kay du dëgg mu ne loolu su boobaa wax la ci gannaaw dëgg la rek loolu bu duggul ci buntu jëw di loolu benn buntu la waaw ñu bëri ci ñun dañu yaakaar ne bu nekkee li ngay wax dëgg la daal mën ngaa mën ngaa jëw déedéet li ngay wax su nekkee dëgg la boobu lañ la tere nga wax ko ndax jëw lay doon comme que moom nekku fi te neexu ko waaye su nekkee li ngay wax du dëgg nag yaa ngi sos yaa ngi koy sosal beneen bàkkaar nga def moo di sosal doomu aadama ji waxal ko lu mu defut dëkkal ko fu mu dëkkut loolu lu jar a xàmmee la dese na ñaari masala yoo xam ni comme que jataay baa ngi bëgg a yàgg yaakaar naa dañ koy bàyyi ba jataay bii di ñëw masala ba ci jëkk moo di ndax ab yéefar des na ko jëw koo xam ni bokku leen diine ab yéefar est-ce que des na ko jëw maanaam ndax jëw dina tàbbi ci kawam nit ki wax ci moom lu ko neex ci deram lu ko neex ndax loolu jëw lañ koy tuddee loolu daañ ko jàng ci jotaay bii ni ñëw insha allah ñaareel masala bi moo di dafa am solo nag moo tax sax nag ñu bëgg koo def beneen jotaay te moo di kañ la jëw di dagan shariatul islaamiya ubbi na juróom benn buntu yoo xam ni nee na fii moom jëw dagan na fi ah loolu jara xam la de juróom benni bunt su fa jëw duggee kenn dootu ko tuddee jëw sharia dootu ko jox àtteb jëw même bu nekkee jëw la sax mu ne àtte ba jóge na fa léegi dagan na def leen ko wala bokk manis na koo def donte imaam Nawawi moom andi na ca tënk yu am solo yoo xam ne insha allahu jotaay bii jotaay bii di ñëw daañ ca jaar ba mu gën a leer ndax loolu xam ko dafa am solo de juróom benn bunta ngi nii yoo xam ni su fa jëw duggee ñu ne ko mën ngaa dem dagan na léegi dara nekku ca su ko génnee tudd jëw nekk bàkkaar kon dig wow ne seen diggante ñoom ñaar lu jar a xam la ba nit ki man ko jëfandikoo su ko soxlaa bu ko soxlawul nag mu bàyyi ko xam ne lépp jëw moom bàyyi moo ca gën waaye nag juróom benn yi moom lislaam sharia maye na nit ko sóobu fa ndax soxla sam ci am ak na ko lislaam maye ni ko soo ko defee soo ko defee dara nekku ca kon xam naa dañuy doy loolu ba jotaay bii di ñëw wassalaamu aleykum wa rahmatullah